bonsoir ami chers internet ñu ngi fii nga xamante ni mooy les jardins du pont Faidherbe de Saint-Louis comme ni ñu leen ko waxee woon ñu fas yéene dalal ki nga xamante ni mooy Lamp Fall Déco mooy def décoration yi ngeen gis fii yëpp xanaa duñu def lu dul tendre que suñu micro mu nuyu leen suñu internet yi Lamp Fall ñu ngi lay jaajëfal di la wax nga nuyu suñu internautes yi. salaamaaleykum waaw maa ngi nuyu Sénégal nuyu waa Ndar di nuyu sama quartier HLM waaw di wax maa ngi nuyu waa Ndar Ràññi info di dalal bi ma waaw dégg ngeen lu mu wax ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di nuyu bu baax xanaa du la laaj lu kañ nga débuté lii nga xamante ne mooy aar bi ngay def depuis quand ka tàmbalee di def nga wax ñu aussi kan mooy làmp Fall ko waaw comme ni nga ko waxee rek aar bi moom maa ngi ci commencé ay 2017 bi ma ko tàmbalee euh, tollagul woon nii boobu dama ko doon jàppee affaire foo rek mais par la suite ci la ma nit ñi sollicité ni ma lii pourquoi pas nga yaatal ko. ba nit ñi gis ko xam ne ni am na aar buy exister quoi waaw noonu laa ci tàmbalee yàlla dimbale ma ma am ay affaires yu ma ci jot a créer réaliser ay réaliser si dara quoi waaw di wax Lamp Fall moom benn euh, citoyen la bu dëkk Sénégal waaw dëkk Ndar dëkk HLM waaw doon benn Baye Fall waaw di nekk ndaw di yëngatu ci wàllum loo xam ni day sonal nit ñi comme lu ci mel ne pëna ma jël ko di ko recycler mu doon benn artiste daal boo xam ne damay def l'art dans la récup quoi comme pneu ñi dañ koy gis di ko staane man ma euh, si côté art bi quoi. ah d'accord dégg nañ li mu wax mi nga xamante ni mu ngi yëngu ci aar aar bi nga xamante ni day jël lépp loo xamante ni pën la mu koy créé waat di ko def ci moom lu mu neex ñu wax la nag euh, ñu lay laaj depuis quand nga ko tàmbali di def ak ndaxam lii sa passion la wala loo bëgg-bëgg la rek wala loo tëb-tëb rek def ko. waaw comme ni nga ko waxee rek man lii tëbuma rek def ko avant may nekk artiste di yëngu ci wàllum recyclage pneu yi njëkkoon naa def jàng naa quoi comme fi gars yi di jàng ba bàyyi rek <laughs> xam nga ci classe gor yi quoi léegi après par la def na. waaw waaw non non <laughs> waaw CM2 comme ni nga ko waxee rek waaw comme moom dañ ni classe gor yi CM2 la yam kon naa ne CM2 quoi waaw. léegi après par la suite ci laa def menuisier xam ma def fi góor yàlla di jaar daal xam nga di taxalee ba nii suñu borom dimbali ma. Euh, ma nekkoon jardinage di yëngatu ci wàllum bay roose après yàlla xeetal ma ci pëne daal léegi bi fi ma nekkoon foofu jànge mu mag fa mais dama doon jàng leneen loo xam du lii mais ci kaw lu ma doon jàng mooy arrosage ak yooyu noonu ci la ma suñu borom dimbale jox ma idée bi maanaam loo xam dafa jóge ci moom rek ñëw ci man du jàmbaar du du du du du dara daal moom moom la neex mu jël jox ma ko lépp rek pour ma jàngal nit ñi ni am na si loo xam ne mi ngi si ñun doon or. di nelaw suñu borom wan ma pour ma wane ko rek waaw. dégg la mooy li mu wax dafa mel ne talent la si moom day daa xëy rek ne xaaral ma def lii mu daal di jàll mu mel ne que nag pënë moom yow danga koy jënd wala da la koy may wala danga koy for. waaw pënë yi comme ni nga ko waxee rek ñun moom daanaka Séné Afrique sax laay wax xëy na Europe moom doo gis sax pënë ci suuf ci kaw ci ci ci mbedd bi mais comme fi ñu dëkk. Euh, ndar euh, daan na ko foo dem moo xam ci dex la moo xam ci mbedd bi la moo xam ci terrain yi la lépp da ngay gis pneu yoo xam ni maanaam dañ ko jël sànni ko te buñ ko sànnee doyoon ci dara doyoon ko dara léegi nag man pneu yi may jël di ko liggéeyee am na ci yoo xam ne maanaam dama koy for yu si ëpp yi ma tàmbali comme yi fi nee ngi gis yëpp dama ko for loo xam ne da doon sonal ñu ñu ma jël ko for ko raxas ko xam nga defar ko peinture ko maanaam teg ko am na si yoo xam tamit nit ñi ñoo may woo comme Michelin yi des fois ñoom ñoom ay pneu yoo xam tamit da leen sonal ñoom maanaam doyuñ ko dara dan may oo ni ma am naa ay pneu ma jël charrette wala ma wut ku ma jàppale ma dem jël ko indi ko kër gi liggéeyat ko delloo war ko ci societé bi daal. mu mel ne que bi main d'œuvre la léegi yow yan matériel ngay utiliser pour dagg pneu yi comme bu ñu gisee ni muy roulé woo nii parce que pneu dafa métti ku ne xam na ni pneu dafa diis mais nan ngay def ba travailler ko ba mu mel nii. waaw pneu moom ku ci ne xam nga ne matière plastique la ba pare ci biir moom lépp ngi ci biir pneu dañuy wax ak bant ak weñ mais boo xool ci pneu boo ci liggéey daan ko yow euh, dafa dafa metti waaw maanaam bu ñuy wax ni metti bi rek balaa nga koy xam nga nekk ci liggéey ci pneu benn li ñu ko defaree ba léegi nit mënul xam ni pneu lii nañ ko defaree matière yi ñu boole composé ko moo bëre man nag borom bi def na bu ma koy liggéey bi ma koy tàmb di liggéey paaka laa ko doon daggee am na ñu bëri bi ma doon wax ñoom duñ ma gëm paaka bi moom waaw day metti trop moom paaka bu nee yu ñaar fukki yeeg yooyu yëpp waaw moo yóbbu sa kattan bi maanaam paaka fukki dërëm yeeg yu bëri laa tàmbali dagg après ci laa am idée jël na couteau yi quoi yoo xam ne ay kii la da koy jël daggee ko yooyu tamit gaaw na mais am na yeneen matériels yi gën a baax ko yi ma koy daggee mais tamit comme que dañuy soogay door rek maanaam mën nañu dundee ak li ñu am daal waaw moom daan na ko liggéey bu metti la boo xam ne moom daal waaw <laughs> ñi xam rafet na comme nim ko waxe deug la liggéey bu metti la parce que pneu dafa diis ñu gis ne nak yaangi def décoration jardin public ndax am jardin public rek mo mës nek sa œuvre wala am nga yenen yo xamantene def nga ko or fi nga xamantene moy les jardins du pont. waaw liggéey bi mom comme fi ma ko njëkk tàmbale mooy sama koñ fi ma dëkk HLM damay xom ni xom ben jamono comme euh, sunu kade yi booy football dañ demoon final. mais biñu démé final ñom na gis nak bo boy xool sax manam nawetaan dañu xewlon ben slogan moy ku dem final rek sa koñ da nga koy jël nga décorer ko reboiser ay garab yooyu noonu léegi nag affaire boobu mu doon lu rafet mais nag suñu booy bi ñu demee final cadet HLM bi ñu ñëwee ma gis booy ñoom tamit kon yëpp am nañu ñu woo ma wax ma ko ma leen loolu moom dama si sawar te maanaam booy bay moom tàmbali sa weewu tànk daal léegi si laa ñëw premier décoration ma def si foofu laa ko def si benn rond ma def fa benn genre baraada ak beneen côté boo xam maa ngi ko def genre maanaam comme euh, casque quoi maanaam comme loolu li may def yëpp maanaam day wax. aar bi may def du aar boo xam da nga koy def nii rek nit xool ko naan lii lan la mais man li si ëpp borom xel laay waxal boo xoolee nga xam ne yow lii yaa ngi ko utiliser sa kër bu dee kaas la yaa ngi ci naan café wala yaa ngi ci naan leneen ak leneen moo tax souvent may defar ay kaas defar ay baraada xam nga ñun Sénégal moom heure bu ñu añee rek <laughs> waaw ñu ngi ataaya waaw mu mel ne que li mu wax dëgg la parce que parfois booy liggéey ci lépp loo xamante ne objet la danga koy liggéey ci loo xamante ni nit ci dañ ciy gis seen bopp daanaka bi may ñëw gis naa loo xamante ni fii xaw na maa tiital sax man damaa naroon daw mu ngi mel nag ku sol dàll def jiinam toog dama yaakaaroon nit bu tëdd la loolu yëpp ci say wàll création la nan la la inspiration bi di ñëwee. waaw comme li nga wax rek xam nga moom loo tàmbali rek suñu borom yenn yi sax idées buy ñëw doo comprendre. man pneu bi ma njëkk liggéey mënu ma wax sax nii laa ko liggéey mais après ci kaw pneu boobu noonu ci ngay da ngay tàmbali benn pneu comme nga dagg ko turne ko am lu ñëw nga def ci lool te loolu boo ko ci defee day méngoog li ngay utiliser si kër yi wala feneen la booy xool lee genre nit la bu toog waaw mën nañu wax ni jigéen la mi ngi sol ay dàll koketam xam nga ma defal ko jiinam aar la boo xam ne day wax quoi ndax xam na ni jigéen àdduna ñaari produire ci àdduna ñaar la mooy jigéen ak suuf boo xool ñun lu ñuy lu ñuy dund yëpp ci wàllum mbay maam ci suuf lay jóge boo xoolee doomu aadama képp ku juddu loolu maanaam sunu maam aadama rek la jigéen indiw ci kaw suuf moo tax ma def ko comme jigéen ak garab maanaam mu doon luy wax daal ma tuddee ko surtout maam nag des fois <laughs> nit ñi dañ ko ragal moo ma leen kii bu leen du dara surtout maam ma bag la quoi waaw. kon nag ñoo leen ngeen découvrir si li nga xamante ni mooy les jardins du pont ngeen gis sëtu Mame Coumba Bag bi léegi yow ñun dañ daan gis ne jardin yi dañ koy décorer li nga xamante ni mooy ay bouteilles verre pierre ñu gis ne yow yaa sa spécialité lii la muy pëna yow lan nga nu mën a wax est-ce que da nga am ñoo xamante ne dañ lay jàppale wala yow kase la wala sa bëgg bëggoo kaa bokk kenn wala gis nga ñeneen ñoo xamante ne mën nañ la si jàppale. waaw lii de maa ko tàmbale mu doon benn euh, loo xam ne maa ko tàmbale sama wàllu bopp mais ci kaw ni ngay tàmbalee rek maanaam nit mënut a dem yow kase ñi moom njëkk jàppale mooy sunu waa kër ndax daanaka <laughs> pëne yi moo jotoon liggéey yëpp. ci kaw terrasse bi laa koy teg xam nga day encombré xam nga kër famille yooyu noonu mais teewul ñoom dañ ma yàgg sollicité di ma wax ni ma lii mën na dem fu ne waaw sama copain tamit yi may àndal tamit ñoom tamit bàyyiwu ma des fois ma am wala ñu ñëw jàppale ma ci bagage ndax pneu dafa diis mën nga ko liggéey mais déplacement yi day métti maanaam liggéey la boo xam ne man sama passion la ndax aar dama naan faaw nga am passion par ak patient bi quoi maanaam passion mooy tax lépp looy def maanaam doo découragé te suñu borom mi ngi wax ci alxuraan ni inna laa ma sabrina maa ngi ànd aji way muñkat yi kon nag lépp looy def nit ñi danañ xool affaire yi xam ni lii rafet na mais am na ñoom côté négatif nañ koy déggee man nag toujours man xaaruma kenn ci lenn samay doolee bopp laa laa ko taxawle sama koñ HLM am na benn association bu fa nekk bu naan CID ñoom tamit lépp programme bu mënti am ñoom tamit yàgg nañ mooy dimbale foofu man président environnement bi la dañu ko dénk te loolu tamit maanaam dafa ma dafa ma sonjaat ma gën a xamaat man maay kan ak lii may def fan la mën a dem waaw ci kaw loolu nag fii ma nekk ci jardin fi ñu toog nii ci buntu jardin du pont ki ñu naan directeur espace vert moom mooy euh, benn mu doon benn euh, sama sama tonton ku baax quoi koo xam ni wax dëgg ne yàlla idée bi bi mu ko njëkkee am wax ko daf ni ma wan ma ko ba ma ko wanee mu xool ko gis ko ni ma ah lii moom amul sax xaar dee laan di indi ko moom tamit mu doon koo xam ne moo naa ko fi indi mu bañ mais bu demee ba indil ma ko rek kon loolu maanaam moom gis na euh, maanaam njëriñam daal waaw. kon li mu wax dégg ngeen ko nit ki ci lépp looy yëngu rek dafa war a am reconnaissance te ñi lay jàppale lu njëkk mooy sa famille. d'accord nañu ah léegi yow ñu gis ne moment bii ñu toll euh, sama mbokk étudiants yi ñu ngi def lu leen neex a te yow am na ñoo xamante ni ci yow soxla nañ ko trop te pën a nekkul loo xamante ni dañ koy jël léegi di taal di def yëfi dof. ban damay gis ñoo xamante ni dañ koy utiliser def ko toogukaay ñii def ko table ñii def ko du n'importe quoi loo xamante ni c'est rentable c'est utilisable yow la ban gis-gis nga ci am ak ban njàngat nga ci am ci Euh, xale yi nga xamante ni ñu ngi taal pneu yi di def du n'importe quoi. <laughs> comme ni nga ko waxee soxna da waaw di la jëfalaat bu baax waaw comme ñi koy ñi koy jël di ko tardé xëy na dañu xamul xam nga doomu aadama di naan université foofu la temple du mais foofu mun nga fa dem te tamit sa yeggu ko ci temple bi man lii dafay wax lu bëre pneu fi nga ko jëlee mooy amul woon beneen maanaam vue la dafa am woon am woon vue quoi léegi man dama ko def ba nit boo ko xoolee. ak ba nga daan gis ci mbedd bi du bokk maanaam beneen dund laa ko joxate mooy mooy mooy vie bi mu amoon ak vie bi bi mu amee ni bu tey bokkul léegi nag booy xool ñii di ko taal xëy na dañ ko xamul des fois man dama leen tooñ des fois bu mu invité fenn dama naan leen étudiants yi moom pën nañ jot taal moom ci seen euh, euh, grève yooyu bu ma ko joxoon moom seen carrière yooyu moom mënoon nañ ci maanaam def ay jardin public public public ah. mais loolu tamit ñàkk xam la rek ndax ñoom lu ci ëpp ñoom fii dañ fiy ñëw affaire bi da leen yëm bu ñu gisee pneu bi ñuy taal ci ci tali bi ak pneu boo xam ne ñu teg ñu jàpp ne danañ xam ne pneu yi benn la rek. message ban message nga leen di lancer la bëgg a lan nga bëgg a wax étudiants yi foofu noonu. waaw étudiants yi di leen lancer message mooy maanaam nit boo amee loo métti war nga ko mën a ñaxtu ci beneen anam ndax ñoom. fi ñu nekk maanaam foofu la ñoom bu ñu la fu ñu nekk noonu ci université moom la temple du savoir foofu ñoom bu ñu fa jógee après quelqu'un nañu doon ci sama xel bu gàtt daal kon nag ñoom ay exemplaire noonu mhm. maanaam lépp leen metti rek mën nañu grève mais mën nañ ko defee ci loo xam ne pacifique la maanaam mën nga am sa soxla wax ko te doo ci gaañ kenn ndax li ngay yàq ci al ci ci askan bi la jóge yaa moom waa ñi maanaam amul benn autorité boo xam ne yow grève nga yaa ko yàqal alalam ñoo ko moomaat wax na dëgg kon nag li mu leen ko waxee sama mbokk étudiants yi yéen la waxal bàyyi leen pën yi ngeen di taal te xam ne li ngeen di yàq am na ñu ko soxla ku ci mel na Lamp Fall boo gisee décoration yi lépp nga xam ne pneu lañ ko defaree di lay wax ne bàyyi leen li ngeen di def te xam ne pën c'est rentable am na ñu ko soxla léegi nag euh, ñu mel nag euh, ñu ngi waaj a yegg si sunu njeexitalu émission léegi yow ban message nga am pour di ko lancer ñi nga xamante ni ñooy autorités yi fi nekk ndax lan nga si bëgg a wax daal si sa métier bi waaw Aïda maa ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax message bu mu doon lancé mooy ñu xam ni Sénégal am nay artistes yu fu nekk ay jeunes artistes talent yoo xam ni maanaam li ñuy def jàngewuñ ko fenn ñun lii may def nii Aïda du benn formation bu ma defal man maa am idée bi man maa man maa ko tàmbale ba fii ma àgg nii man maa ngi fa àgg sama bopp mais tamit ak kàttanu suñu borom ndax maanaam doomu aadama Dieu propose l'homme dispose loolu lañuy wax ku ma jumul waaw léegi nag fii ma li ma bëgg nag mooy comme fii mooy jardin pont bi nañu am mooy jardin boo xam moo nekk ci xolu Ndar bu ñu nee Sénégal ñu pont bi bu nee pont Faidherbe bi ñu Ndar kon nag ñun lu ñu am mooy pont Faidherbe bi moo tax man li ma bëggoon dëgg-dëgg moom mooy li ñuy njëkk tàmbale ma tàmbale ko fii mais fii dong du suñu yamuñu fii kase war na nañu mën a pourquoi pas ma gis naa institut yoo xam dañ ko abandonné foo xam ne mënuñu fa def lenn te pneu yi yow bi nga ko fi defee ne yaa xuraat beneen jamono bu la neexee couleur bi changé nga jël ko peinture beneen couleur maanaam du déranger kenn du yàqal kenn te nit ki bu ko xoolee dana dana ko jàngal waaw maanaam message bu noonu naa si mooy autorités yi ñu jàppale ñu ay artistes nañu ay jeunes nañu lépp lu ñu fu lu ñuy def rek suñuy doole bopp lañ koy defee ñu dimbali ñu bu baax dëgg la li mu wax dafa rafet nit ku nekk sa dëkk nga am te boo nekkee sa dëkk am na noo xamante moom nga fa war a taxawee te ku nekk gis na li Lamp Fall di def fi nga xamante ne mooy les jardins du pont rafet na yaa rek lan leen di wax yéen ñi nga a yor jardin yi ubbi leen ko xale yi mën ci am que jardin bu nee public ça appartient à tout le monde ñun yi nañ leen bàyyi jardin yi ñu ubbeeku nit ñi ñëw moom la nit ñi di naqarlu mooy li nga xamante ne moo nekk ci suufu pont bi salte na nit ñi set setalee dëkk bi di ko set setalee marché bi na ñuy ñëw ci suufu pont parce que nit yi pont bi lañu am parfois nga bëgg ñëw romb visiter mais xet yu nauséabonde yi fiy dégager nit bëggu ko te loolu nit mënu ko respirer yéen yéen a ci mën a jàpp ñu ngi leen di solliciter yéen gouvernement bi yéen mairie bi yéen ñi fi nekk à que ndar ñun ñoo ko moom ñu gën ko rafetal gën ko taara parce que loolu rek lañ bëgg waa Baye Fall sa dernier mot. waaw sama dernier mot waa di jaajëfal waa Ndar di rafetlu. maanaam comme ni ñu dimbalee maanaam ci yaatal bi ndax ñi fi ñëw nii maanaam télé bi mu doon waa ndar ràññ ku ni ndar rek waa ndar moom daanaka lépp war a ràññ quoi mooy luy luy feeñ li naan faar waaw kon nag man di leen jaajëfal ci kaddu Lamp Fall Déco naan ba maam Lamp di ko maam làmp yi mooy leeral maanaam maanaam faal bi xam nga ñun ay baay faal noonu kon lépp lu ñu def dañ koy tàmbale ci maam Cheikh Fall mooy bundu Serigne Touba maanaam déco mooy décoration dañuy décorer école dañuy décorer jardin public dañuy décorer sa kër maanaam lépp à base de pneu la ba pare loo xam recyclage la loo xam ne doomu aadama da ko sànni jël ko récupérer ko maanaam di leen jaajëfal bu baax waaye dëgg la moom mu ngi participer li nga xamante ni mooy environnement bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen ñaanal yéen samay caméraman yu Ndar Raññe Info amuñu seen fay macha allah merci beaucoup à et merci nos chers internautes de Ndar Raññe on se donne rendez-vous bientôt incha allah.